plus grand plaisir, c'est de vous servir. Très ravi, très spectateurs de Dakarnet. Nous sommes très trop-mêmes contents. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, ça dépend de quel côté du globe vous vous trouvez, mesdames et messieurs, les téléspectateurs de Dakarnet. bonjour ou bonsoir ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, ci àndandoo bu rafet bi ngeen ànd ak ñun à chaque fois bu ñu tàmbalee euh, ngeen daal di ñuy toog fii ci biir Dakarnet euh, tey nag dañoo décentraliser li nga xam ni moo di studio daal di génn studio daal di doxantu. ndax li ko waral mooy tamit noo seet si benn ndaanaan boo xam ni euh, ndaanaan la ndaanaan la boo xam ni euh, ci bu waxee nga xam ne ndaanaan la mais également euh, di di rappeur bu ma nee rappeur nag ñu gën ko xam ci si Benn Maay si Benn Maay tey moom fekk si fii si Tivaouane Peulh ngir am ak moom waxtaan yoo xamante ni ay question la yoo xamante ni xëy na moom bëgg na ko dévoiler mais booba tey amul occasion pour dévoiler ko Raison pour laquelle euh, nous y sommes pour vous donner le maximum de ce que vous cherchez mais également le maximum de ce que vous voulez alors reste coaché sur Dakarnet ñu daal di bàyyi kii ñu dalal tey mu daal di nuyonteeg ñi nga xam ni euh, ñoo di euh, téléspectateur Dakarnet allez. waaw salaam allez salaamaaleykum. salaam. di nga maa ngi baax a baax di la jox sa wàccuwaay di fans Arrêt Ben MC yëpp maa ngi leen di siyaar ñoom di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na man ngeen ma mais ma maa leen raw ok jaajëf. mais Alé est-ce que pare nga tey pour ñu waxtaan man ak yoo xamante ni question yu euh, yu tàng jër lay doon est-ce que pare nga. non yaa ko tere neex. balaa ñuy dugg ci question yi dama lay bàyyi nga nuyanteeg ñi nga xam ni euh, ñoo lay seetaan nag de déjà euh, léegi kan mooy Alé ba mu bëggee xam Alé parce que tey dama bëgg xam beneen facette Alé parce que dañu xam ni Alé bu xam na ni Alé benn rappeur la xam na ni yi. donc loolu ci aada mais lan la ñu nekk benn xale euh, xam nga yaroo diggante jàmm gën ak Pikine mm-hmm. waaw ñu naan ko aada bin MC mm-hmm. euh, aada bin MC nekk juddu 94 mm-hmm. waaw nekk benn xale bu ndaw waaw tamit lu nekk des naa ko pour bañ a yalwaan euh, jaay naa entreprenariat Jurbel yaa ngi dégg uh-huh. jaay naa ay socc uh-huh. xam nga uh-huh. lépp rek pour bañ a yelwaan mais après nag ñu dem ba benn instant xam ni après nekk ci studio bi tamit waaw xam nga nekk ci studio bi 2009. 2009 nga dugg studio. waaw 2009 ci rab. musique damaa dugg ci rab damaa xam ne tey nit ñi maa ngi di liggéeyi. am seen i tànk dem di liggéey di am seen xaalis di dimbali seen i waajur man ma xam ni mënal ma sama dara foo fekk damay tëdd 24 heures ci 24 maa ngi tëdd a ah, ma xam ni sama làmmiñ rek am a ah, ma dugg ci musique waaw si tamit man même bu dul woon dara tamit ah dinaa woy ndax man géwél laa ah maa la demee rek. mais Alé bi nga ñaata nga njëkk am ci rap nga xam ne lii kat musique moo la ko fay parce que da nga duggoon ci rap ngir teral say waajur ce que je veux dire ah. waaw su ma déggee bu baax loolu loolu moo taxoon nga nga dugg ci ci ci milieu art ngir euh, la njëkk fay. Euh, benn grand moo ma sa benn grand moo may wata sama bopp tout le temps mm-hmm. ma ñëw suñu kër di ma wata sama bopp mm-hmm. léegi benn jour ma ñëw suñu kër ma ne ko damaa am benn son bu may. du may rab quoi léegi ma wax ma son bi naan naa la demee mais après mu woo studio Gaston expliqué ko grand bi benn boy affaire yooyu ko grand bi ne ko naa ñëw mu may ma enregistrement bi après ci laa dina studio Gaston enregistré benn son tuddee ko nit ñi te garabam waaw mais li ma njëkk a génnee a jëndee li ma njëkk euh, am ci Euh, kii la nan la di deux cent cinquante. deux cent cinquante franc laaj ci xam ci tam. deux cent cinquante yooyu fu mu jugee. dem jëndee ko dem jëndee ko instrumental. <laughs> yaa ngi dégg. allez ka moo jaay instrumental deux cent cinquante yooyu. non damaa génn damaa génn. Euh? damaa génn ci mbedd bi ànd sama xarit bi di doxantu benn gannaaw di cinquante suñu kër. Mm-hmm. benn gannaaw di cinquante suñu kër. Mm-hmm. xam na ne man rapport laa mm-hmm. mu ne xaritam bi. doom bi rapport la ñu weddi ko. ndax sama melokaan ndax mu no mel léegi nag eh, garaani ma ba raral ñu ma rawaleen benn garaan ma deux cent cinquante xam nga ay temps instrumental dañ koy jaay nii mhm. mooy CD yi jaay di jaay ay téeméer affaire yooyu noonu ma jël deux cent cinquante yooyu li jëntewaat ah, weccet daal di jënd benn instrumental <laughs> waaw loolu la. 250 yooyu moo la njëkk moo la njëkk feeñ ci rap. <laughs> waaw waaw ba dérape dérape kon yow kon yow mën naa mën naa ni musicien nga musique musique dafa nekk sa beneen. la demee nag maanaam affaire bi la jox rek pour man musique bi lu mu da nga kaa war a delloowaat waaw man. foofu laa ko teg mais Alé Alé Alé est-ce que Alé pare na tey euh, pour pour pour pour nga ak tamit xam naa xëy na dañoo rus a ànd ak benn handicapé comme nii nii xam nga mais heureusement tamit booy bëgguñu handicapé mais man bëgguma leen ndax man jigéen ñi la gis man nabuma leen waaw xam nga man xale bi jigéen bi nab mooy euh, koo xam ni ku tooy nooy xolam tooy mu gaaw a jooy. waaw noonu la demee nag. kon aale instant bii daal euh, génn ak kenn. non aale aale bi dañ sa xaalis ak génnal xaalis. aale benn parce que instant yi dañoo am ay projet ñu bëgg a taxawal bëgg nañoo taxawal studio ak maison handicapé parce que am na handicapé yoo xam tey seen i parents mën nañ leen abandonné wala ñu ñu bàyyi leen ñu taxawal affaire yooyu noonu nga tabax leen maison handicapé handicapé yi di fa jàngee di fa nekk naa la demee. donc donc donc su ma déggee daal loolu mooy seen bépp yow tabax benn maison handicapé pour handicapé yi dugg fa di fa yëg seen bopp. waaw man loolu mooy sama rêve instant bii nii. waaw ale ale kañ lay yëg handicapé bi dëgg la koy yëg maanaam kañ lay toog ba yàgg xolam tooy wala xolam metti mu yëg handicapé bi kañ la koy yëg hmm. comme exemple tey suñu waa kër buñ génnee dem fenn bàyyi ma ma kese ma kese ci biir kër gi ma bëgg a naan ma bëgg naan wala ma soxla dara ci ay sama handicapé wala exemple tey ma ma war dem fenn ma war dem fenn te aw ma oto kon exemple comme ni sama oto yàquwee ma war ma bëgg a dem fenn oto bi ma war a jël si tardé affaire yooyu nag ci laay centré nii man mii handicapé laa. mais su dul loolu dina sant sama handicapé. Aly mas na sentir handicapé ba tax mu tuuri xéwal ba tax mu <laughs> ma parce ma da lépp lépp lu ñëw rek damay jàpp ne yàlla suñu borom la mm. parce que tey am na benn tëdd tëdd sama yaram metti moom mu ci xalaat daal ne man am na tey ñu nekk tey ci hôpital yi buñ naanee meew lañ naan am na ñoo xam tamit tey euh, da handicapé nañ mënuñoo wax mënuñoo wax mënuñoo toog kon man lii de dama koy sant yàlla naa la demee. Ali damay faral di dégg ñu ne Ali mooy ambassadeur handicapé yi. waaw ah. euh, loolu maanaam benn statut la buñ la buñ la buñ la taf wala loolu c'est vrai Ali mooy mooy ambassadeur handicapé yi. mais am ndax sa def ngay. Euh, euh, kan moo la def ma ko ma def ma maa ko def sama bopp. ndax koo xam ne tey yow bu koy maat mënu kaa rey ma lànk daan di yowaan yi kon kii kenn gën kaa doon ambassadeur. waaw damay ambassadeur handicapé parce que ambassadeur handicapé kenn ko def nit nit ki moo koy def boppam te handicapé nay xam ma doon handicapé ñu lay dund. Mm-hmm. naa la mais Ali Ali damay faral di wax ak yow parfois damay faral di waxtaan ak yow ci li ci mel ni WhatsApp. wala lu ci mel ni message normal euh, Ali kan moo koy bindal message ma non message bi may bind. <laughs> waaw kenn amul jot bindal ma bindal ma message. Ali yaa bindal sa bopp. bi may bind yëpp. kenn amul jot bindal ma message bi. maa bindal sama bopp. Ali da nga jàng bu bon bindal sa bopp message. non jaaruñu nag jaaruñu alxuraan naa soxla alxuraan lañ jàng. Hmm. te sorewuñu yi. sorewuñu yi isa suma am fa taral laa yem. fa nga yem. waaw fa laa yem. ndeysaan waaw ñu école jànguñu leneen. Mm-hmm. waaw tey aale bu bëggee julli nan lay julli. bu bëggee julli aale bu bëggee julli rek <laughs> day tëdd day tëdd julli ci xalam. waaw. xam ne tamit yàlla moo ko teg te aussi tamit da koy nangu. Mm-hmm. waaw maanaam man tout le temps sant yàlla suñu borom. ndax tey ndax tey li tax may sant yàlla am na loo xam tey yàlla defal na ma ko te defal defal ko ñu nga xam ne mën nañoo dox. benn instant may sant yàlla parce que am naa am naa oto macha allah yenn saa yi ma am sama wékkat macha am nañ terrain naa la demee. ndeysaan na benn question boo xam ni dama la ko bëgg laaj. waaw xam naa ni bu ko laajee sax eh, dina dina bari ñoo xam ni question bi dina leen touché. Mm-hmm. mais également yow na laa touché. waaw ah. eh, nga baal ma nag ci question bi mais faaw ma laaj la ko. waaw ah. est-ce que Ali dugg waaw Arlington FC Issa dugg na nekk góor waaw c'est normal ah jongo na def waaw yaa ngi dégg. kañ kañ kañ la Arlington FC jongo na. depuis bi bi mu amee huit ans. waaw bi mu amee huit ans parce que man damay gis handicapé yu bari tey bi ñu nekk handicapé waa seen famille bi ñu leen nangoo dugal handicapés yu bari seen bi dañ leen nangoo dugal ne góor eh, ndax dañ naan ñi ay rab lañ dañ naan ay rab lañ wala ñu ragal leen dugal ne góor wala ñu yërëm leen waa mais man man eh, bi ma amee huit ans damaa jooy bi ma amee huit xam ne ma mii maa ngi jëm mag damaa jooy at boobu yëpp at boobu yëpp dama kaa taxaw sama yaay yow yaa taxaw pour maa taxaw sama yaay. pour ñu dugal néeg. waaw man suñu dugal néeg góor. loolu jànkuwante aussi benn problème bi nga déedéet déedéet oto moom maa ko soxla man lépp lu ma soxlaa rek maanaam loolu lu ma ci mën a dal bànneex lay doon ci man mm-hmm. yaay dégg ma taxaw sama yaay euh, jooy na tout le temps may jooy ne ko man damaa bëgg a damaa bëgg a dugg néeg góor xam ni nga koy waxee sama mag bi sama mag bi maa jóge maa ngay siyaar bu baax a baax a baax ma jóge bu mu dem uti benn docteur te mm-hmm. docteur bi fekk si moom sama kër te dëttal bi daal may jongal comme ni ñu koy waxee. fan la maam fan nga ko duggee sa biir kër kon nga ko duggee. a sama kër parce que dama euh, dem tamit am taari sax nii mais loolu xale laa huit ans laa huit am nag. bàyyi ma ba nekk ma ko jëm sax sukkir naan damay jox ma yaa ngi dégg dëttal mm-hmm. bi mu essayé mm-hmm. fekk may ndékki mm-hmm. ma ne sama yaay nañ teg ndékki ba pare nañ teg ndékki bi ñëw jongal ma ba pare ma soog a àggali sama ndékki parce man tout damaa jàpp ne man damaa war a gañe te naa lay demee. Allé la jokk Allé Allé ci ban ci bër kër diine la jokk. Allé Allé sëñ Abdou Karim mooy sëriñam. ndeysaan sëñ Abdou Karim mbàkk bi la màkkal baax laa. Allé mas na seeti sëñ Abdou Karim. yàgg na sëñ mhm. euh, bi bi ma bi ma bi ma fa demee. Mhm. bi ma fa demee damaa tourné ñibbi si sëñ bi di laaj ay propos. yaa ngi dégg nga. waaw waaw parce que loolu yëgoon naa ko. sëñ laaj ay propos. Mhm. te avant ma fay dem boobu laaj ma propose ma dem fa sëñ bi di laaj propose may si sama kër benn Modou Modou ma nekk Amérique may ma propose bees tàq ma xam ne man man dañ maa war a jox mais ma maa bëgg a joxe ma jël sama propose yónnee ko Touba ci sëñ Abdou Karim eh, la carte bi del si la 4 décembre del si Wally Seck may ma oto waaw kon naa la ci wàllum oto boobu lay ñëw <laughs> Wally Seck defal na la Euh, defal na la teraanga bu rëy boo xam ne Sénégal yëpp teg nañ ci seen i bët. waaw ah. te bi mu ko waxee ñu bëri dañ ni woon euh, day ci ci ci wax rek lay yem. waay ñu gis ni Ali jot na oto bi. donc yow ak Wally Seck ngeen teraanga koo xamante ni euh, mën naa ni du ñëpp la ko seexal. waay que yaa ngi déggante ak Wally ba léegi wala déet. non Wally Seck déggante wuñu ah. Wally Seck benn yoon lañu mës a déggante. benn yoon lañu mës a déggante mooy mooy papaam génne na noonu. Mm. Ah, boobu nag di taxawal génn àdduna xam nga doon waaj tëgg benn événement xaw ma jot na ko tëgg biñ ne ginnaaw suba événement bi ci lañ déggante téléphone te avant boobu tamit dama faa dem dama faa ji ko. ak xam nga tey ñëw parce que dala defal teraanga goo xamante ni ndeysaan eh, suñu papa bi mu génnee ok na est-ce que eh, Ali na déplacement dem jaale ji ki nga xam ni moo di eh, Wally bi mu gisee sa sa gisee sa teewaay eh, lan la yëg parce que xam nga ku xam Alé dina xam ne déplacement am yombul. donc bi mu gisee sa teewaay lan la Wally njëkk réagir. waaw ah, ndeysaan waaw waaw Wally Seck bi papam génne àdduna boobu noonu mën ma woon dem quoi parce que tamit instant mhm. naa tamit nit ñi mhm. xam nga tey nit ñi mooy loolu xam nga rek <laughs> Sénégal bu ñu buñ gisee ànd comme ça tout le temps dañ la war a sarax war a yenni affaire yooyu noonu waaw léegi ma bàyyi ba ba kii bi passé ba dëj bi jàll ma daal di jël oto fay ko dix mille francs daal di dem ko Waly Seck jaara jógo waaw naa la demee non Waly Seck bi ñu demee waaw ak yéen nañ ak yéen nañu naaj san oui non Waly Seck sama sa liggéey sa liggéey maar aju naaw la des noonu jar ko delloo colam bàyyi nee naa ko la demee waaw nee nag Wally Seck sama xarit la mais tamit euh, di siyaar euh, bébé baas seeni Papa Diouf ndax tamit sama waay la <laughs> waaw non bébé sama xarit la non man bi ma dooree hmm. man aali Sénégal laa wóor na yàlla man ñëpp ñoo ma bëgg dañ naa ko damaa am benn groupe whatsapp tuddee ko aale info ay politiciens mooy politiciens yi élection locale yi politiciens yëpp ci ah, naa ni àll ah, da ngay politique yow. non politique euh, comme ni ma koy waxee à fois il a l'habitude de camper les décors merveilleusement bien partout au Sénégal même à travers le monde lépp lu ñu fi wax lu ne day leer. waay donc bu ñu ñëw bu ñu defee déplacement ñëw ba fii dañu bëgg aale leeral aale da ngay politique wala non Aly Bin MC Sénégal la faral man Baldé bi ma dee. mais Aly Sénégal la faral d' accord mais am na koo xamante ne Aly bi ci ginnaaw parce que Aly di am mbooloo nag. <laughs> waaw am nañu mbooloo ba macha allah. waaw am nañu mbooloo kay macha allah sax. Aly man xam naa la mais bi instant sax. man nga ma wax ah. ci suuf Aly da ngay politique wala politique. en tout cas président bi ma bëgg daal président bi nga xam ni euh, ñi ko war te du dundee maa tey président bi ma bëgg mooy président bi xeexal bañ a topp bakkanam waaw président boobu laa bëgg président Sénégal. waaw la Wally Seck xaritam la ce que Wally euh, ce que Ali mi ngi xalaat un jour mu def ma isaan sama réew. Ah. waaw. Euh, ginnaaw kër kër bi ma dëkkalee sama yaay. waaw kër bi ma dëkkal sama yaay. Mm-hmm. yéen sama rakk yaay bi màkka. loolu rek mooy sama réel waaw ànd ak Wally Seck son ak Pape Diouf parce que dama yàgg naan dama man sama sañoon damay bokk ak artiste mag yi euh, ci kaw seen sa diggante ak Pape Diouf la aussi na rek yàlla jàppale ma ànd ak Pape Diouf ñun ñaar ñu bokk benn benn seen Pape Diouf am grand théâtre invité ma ma dem foofu noonu joué Wally Seck tamit bi ko waa Pikine bi ñu tegu benn événement ñu invité ma tamit ñu neex ñu bokk benn seen te loolu laa doon rêvé waaw. waaw mel nag eh, da ngay dox également ci social. waaw moom Sénégal gis nañ ko. waaw mais man sama problème du sax sama problème problème Sénégal yi la parce que bi ma bi ñu yéegee ni Ali la Ali la invité ñu bari dañ ma laajal ñu ko question bi Ali fan lay jëlee xaalis bi muy defee social fan la koy jël. social waaw man su may def social damay def euh, damay def benn affiche. Mhm. daal ni à partir man Sénégal ñoo bëgg man la Ali bin MC mm. le menthe fraîche de la vallée kay yàlla nga xam eh <laughs> ma def euh, euh, benn affiche mm. ku ku bëgg kenn ku ne ma ci à partir mille francs mm. waaw Sénégal yi tamit ci ciy jàpp dañ ciy jàpp bu baax baax baax baax <laughs> eh, moo leen lan ngay wax Sénégalais li occasion la tamit parce que le 18 le 18 décembre damaa damay jox élèves handicapés yi ay fourniture ay sac kon ni ma daan defee rek ak ñi nga xam seen parents ay handicapés lañ ak albinose genre genre yooyu noonu waaw may wax gars yi aussi tamit kon niñ ko daan defee ñu defee ko noonu waaw waaw jàpp bu baax a baax a baax ndax bee passé 55 élèves handicapés lañ joxoon ay fourniture ren la gën a yokk incha allah. incha allah dina yokk ndaxte xam nga eh, booy def lu baax moom eh, di ko fësal waaw ah. eh, wolof day faral di wax ni. waaw ah. am na yu baax yoo xam ni day koy fésal waaye am na loo xam ni mënees koy fésal. léegi def na jot na ngir sénégalais jàpp si. ngir sénégalais te aussi tamit aar bi nañ si social bi tamit xam ni nga ko waxee fecc bi bu neexee. ndey jaartee ca ya waaw aar bi nañ si social am doxee. bu doxee war am yenn yenn jab yi daal maanaam euh, monsieur le maire Issakha Diop day jàpp ci combat bi xam nga Ndofène Fall day jàpp ci voyage bi euh, président Modou Gueye borom ASC Pikine hmm. kooku tamit da ciy jàpp baax a baax a baax Moustapha Mbengue maire Kër Moussa da ciy jàpp <laughs> xam nga ak Moussa Camara hmm. waaw PDG Tampico baax a baax euh, Euh, lan lan la moo la gën a métti ci sa àdduna ba nga doonee Alé ak lii de 94 à 2020 lan moo la gën a métti loo xam la touché maanaam lan moo la a métti. loo xam ne moom la gën a métti waaw loo xam ne moom la gën a métti moom waaw jour bi sëñ jour bi sëñ Saliou génn àdduna jour boobu am naa lu métti laa sant may jooy ba su may su may jooy ah sama dënn bi day métti après. waaw nan de demee waaw waaw nan la demee waaw 2007 waaw loolu bok na ci ma ci li ma gën a marqué parce que man sama handicap bi nekkul ma métti ah dama xaw miis waaw comme ñëw a nan la demee nag bu loolu weesoo lan moo la gën a neex ci sa dund gi li ma gën a neex waaw li ma gën a neex ci sama dund bi li ma gën a neex comme ni ma yàlla def waaw ma koy sant yàlla baax a baax loolu bokk na ci li ma gën a neex mm. waaw. parce que ni may ni daal ma koy waxtaanee. Aliou da nga koy faral di da nga koy faral di gis parfois ci ay concert Aliou buy ah. déplacé wu di dem ci concert euh, ñan lay àndal dafa am staff boo xam ne moo ne si ginnaawam Aliou dafa am ménageur euh, maam dafa si ginnaawam boo xam ne moom lay jokkal wala Aliou nañu woo rek Aliou déplacé wu def. non Aliou Aliou beneen si waaw day am comme ça bi ma soo ma invité benn événement nii mm-hmm. am naa samay xarit. sama xarit yi ñi nga xam ne man ñoom laay àndal fu ma jëm ñoo ma yóbbu ñooñu laa ñu ko wax nee nañ dañ naa wax événement affaire yooyu nag jour tel aussi ngeen nata ko aussi tamit amaat ñeneen ñaari gannaaw ku mel ni Thiat Diop Thiat Diop ak Ibrahima ne leen maa bëgg ngeen leen jiitu ji léegi nga xam ne bu ma essayé rek man fu ma yëg day yomb waaw ñoom ñooy nekk ci bagage yi waaw xam naa ne du ñu mel ni yow. Euh, def ak yow interview ba jóge fi te te te bi ñu may benn freestyle. ah à dire li li jox hmm. hmm. waaw incha hmm. <laughs> maa nga fa kay. Ah. waaw dina mel ni tànn bu police yi waaw naa la demee nag naa la demee. <laughs> Allez nga may may. man la jëmm mënu maa yëkkati cër. foofu fekk damay am feebar bu sew sama yaram di tàng jër ma ni di ale sama kër gi bàyyi fa damay fekkaat yenn saa ma xool samay cër sama yaram daw sama xol jeex waaye ma muñ xam ne àddunaa nga nii lës muñ dafay jeex te boo mën a lu sa bopp dara doo tàng xol bu jeex yenn saay mën a dund du may dund dafa metti waaye sama xarit bi seex ma naa ma aada mu ñëw lu metti lu ne dina ma sa jeex su ma fàttali ko benn bis mës naa toog suñ digg mu taw ci sama kaw to te maa daw su ma fàttali ko benn bis mës naa ta ci kër gi ba naaj bi fekk ma fa bis boobu boobu la laa fanaanoo lu ma wax am na lu des li des su ma koy nettali damay mer ba damay loox samay xarit samay àndandoo ñoom ñëpp ma beddi ndax li ma nekk handicapé handicapé bi doon ma ko jàppee ñi ma yaakaar ne ñooy sama gaañ duñ toggee di naan caañ dañ may a sama kaas war ne ma duñ sa maas suñu waa kër nag ñoom waxaale wu ma leen suñu bale mbal bi mépp sama kaw lañ koy yemale duñ ma yëkkati duñ ma ko jugal di laay di may dund ci gàlle bi natt la wala mbugal su ma nee beral ak kaas daa tas ñu daal di may xas naa ma la fañ bi lii daal du sama coobare su ma sañoon xëy daanu doole waaye borom bi daal moom la ci boole. naa lay def mu doon mu doon mu doon bu bu boo xam ni képp kuy doomi aadama rek képp kuy doomi aadama yaakaar naa ni boo déggee lii bu dee xool rek nga yor la laal man jamono yi xam naa ni damay bàyyi aale tàggoo ba defee man ma tàggoo parce que nit nit rek nga aale ñu bàyyi nga tàggoon teg ñi lay seetaan. waa di wax waa di wax Sénégal daal yàlla fi jàmm yàgg. xam nga aussi tamit euh, Dakar net yàlla dañ ba a avancé xam nga dem ba nga nekk nga dem télé télé international xam nga isaan sa nekk na télé international <laughs> parce que gars yi ñu ngi suivre waaw ah, nan la di kontaan ci déplacement bi ngeen déplacé a ah, waaw nan la euh, di boo xam ne il euh, invité boo xamante ni. invité la bu mat invité parce que liñ fi waxtaan ak moom yëpp yàgg na ko bëgg génn ci xolam mais mënu ko woon tey na am occasion pour génne ko euh, di leen jox rendez-vous di leen jaajafal bu baax a baax mais également di jaajëfal sama cadreur bi ak ñi nga xam ni ñoo ko assisté ci li nga xam ni moo di bii live bii live nag nii rek lay demee à chaque fois buñ koy def rek dañuy bëgg ngeen di yëg ñi nga xam ni ñu ngi dundu ba si ba si bu dee benn métit si seen xol yéen ñu partagé ko ak yéen ngeen daal di ànd ak ñoom euh, ñu leen di nag ki ñu dalaloon tey Ali benn MC mi mu koy wax Ali Mbu benn MC doomu géwal eh, dugg ci li nga xam ne moom di milieu musical di rap tey moom lañu dalaloon fii ci waawoon pël di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaandi moom ci beneen invité ci beneen numéro sur même scène Dakar Net merci beaucoup